bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajmain asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk dégg diine mbokk yi ñu topp ci plateforme digitale yëpp ñu ngi leen nuyu ginnaaw bañ leen sante bu baax ci àndandoo bu rafit bi ngeen àndandoo dégg diine boobu ba projet bu ñu fi yëkkati ñu àndandoo ko yàlla defal ñu ci tawfiq ñu ñëwaat tey ubbiwaat beneen projet muy projet studio comme ni ngeen ko gisee liggéey bi laaj na ko moo tax ñu bëgg ubbi eh, studio boo xamante ni studio d'enregistrement lay doon ay phase la nag maanaam ay pàcc pàcc la pàcc bi ñu toll nag mooy phase un bi moom liñ ciy def mooy insonorisation décor plateau ak lumière insonorisation mooy fexe def ba def anam yoo xamante ne dafay tax studio bi maanaam son bi du am écho te biru du ci dugg ñaareel bi mooy décor plateau mooy ñu defar plateau boo xamante ne ci la émission yi di amee ñetteel bi mooy lumière studio phase bu njëkk bi nag ki ñu ko war a defaral bi muy defaree début bi mi mooy insonorisation bi lumière studio yi ak décor plateau bi ak écran bi kon mbokk yi képp ku ci bëgg a jàpp rek même numéro bi la ba léegi mooy 78 514 78 38 ñu leen di ñaan yéen ñëpp ngeen jàpp ci participer ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam te ne moo ñu doon jàppale ci projet yëpp yàlla na jàppale waat ci suñu projet bii ba balaa yàgg ñu passé phase 1 bi ba dugg ci phase 2 bi jazakumullahu xayran لو عندي عمر jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp ngeen ci ànd ak al oustaz abdallah baba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di al fatawa mën ngaa yónnee sab laaj ci numéro whatsapp bu fatawa rajo leeral fm numéro bi di 78 179 27 59 78 179 27 bi képp ku yónnee sab laaj ci whatsapp bi dinañ ci jot jërë ngeen jëf kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ni yéen a ngi ni topp ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana a docteur Mouhammad Ahmed Lo xafidahullahu wa raa tey di dix muharram mille quatre cent di tolloog 24 juillet 2024 seen émission alfatawa ngeen koy topp ci Leral FM 104.6 ak ci Salam ba ca Mbàkke ak ci euh, keppaar ga ca Kaolack ak leeral ga ca Ziguinchor ak ba ca Podor dina ci topp moo xam ñu nekk ci biir Sénégal la wala ci yeneen continent yi Europe ak yeneen yëpp ak avis ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko waaye rawatina defal ko cheikhana docteur Mouhamed Ahmed Lo gi nga xam ni mooy jàppalanteeg askan wi ci tontu laaj yi kon tey ñu ñëwaat ci émission bu bees bi jox cheikh bi mu ibbee incha allah rabbi ñu doogay jukki lenn lu fi rot ci laaj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 sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma baadu fassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu déglu ak fépp fu ngeen mën di nekk noo ngi del siwaat ànd ak yéen ci jotaay bi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko cheikh abdallahi bismillah jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na da am mbokkam bu gaañoo Dakar ñu war ñu war koo denc ci ndar mu ni ndax dina dagan waa Dakar jullee ko mu ñëwaat ndar waa ndar jullee walla wala rek doylu ci benn wala bu ñu defee ñaar yëpp dagan na alhamdulilah jullee yaari yoon wala yetti yoon lu ci nekk mën naa nekk wala lu ko ëpp sax nag takraaru salaa day am ñoo xam ne dañ koy jaawale ak salaatul xaayib loolu bokkut Euh, takraaru salaa mooy baamtu julli gi jullee nit ba noppi julli julleewaat ko loolu lu mën a nekk la yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na ko jullee nañ soxna ba denc ko koo xam ne ci jàkka ji la nekkoon di liggéey fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekku fi bi mu ñëwee gisatu ko ci jàkka ji muy baleekat defar mu laajte ko ñu nekk kooka daa génn àdduna ba denc nañ ko soxna su ñuul la sax ci ni ko al imaam Buxaari nett la yonente bi alayhi salaatu wasalaam génn ñëw ci armée li ne tegtal leen ma fu ngeen ko denc ñuy ànd ak moom ba ne ko fii lañ ko denc mu daal di taxaw ci armée la boobee daal di koy jullee salaatul janaasa jullee néew yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee àdduna ba ñu teg ko fa bunti jàkkaam jë nit ñi nañ ko doon jullee mooy mbooloo mu ñëw rek da àndandoo jullee daal di dem toog meneen mbooloo ñëwaat jullee même toog moom lañ ko def ba waxtu denc ko ñu door ko denc ala kulli xaal ki nga xam ne daa faatu fi bérëb mbooloo mu bari nekk ko ñu nar koo denc feneen maslaxa la ñu jullee ko yaari yoon maanaam suñu jullee ko ndakaaru ci ñu ñëwee ci laaj bi ndax mbokk jullit yu bare bari mën a ànd ci julli googee rawatina su dee dañu koy yóbbu ci ëslëkk su ndaw soo xam ne mbooloo mu bari nekk ko day gën a feddliku soo demee foofu ñooñu jullee ko ñoom door koo denc loola lu baax la ku tardé julli ga sax boo ñëwee mën nga koo jullee ci bàmmeel allahu xayran cheikh bi kii li muy laaj nee na ndax dina dagan moom mu takk benn soxna soxna soosu nag am na doom ba mu fay ñëw moom doomam takk doomam jooju wala rakkam takk Euh, doomu soxna alhamdulilah ah, tey loolu dagan na maanaam doomi jiitle ci ju jigéen sa doom ji góor mën na koo takk sa rakk ju góor it mën na koo takk wallahu taala alam jërëjëf cheikhana barakallahu fiikum cheikh bi kii nee na dañ koo ci ab waxtaan wala defare ci diggante ñaar ju doon sëy waaye nag nee na ndaw sa ñaan na baatam ñetti yoon dan fase ko ñetti fase mu war caa dem nag moom pour defare wala waxtaan ak ñoom mu ne conseil nga koy jox bu eggee alhamdulilah ñoo xam ne day fase dox na seen diggante ñetti yoon muy seqi ay jéego di fa dem xanaa su fa demee rek mu yëgal leen seen diggante arab la euh, ndaw sa na fa daal di jóg dem iddawoo ji ci fa mu jóge woon wala feneen waaye seen diggante moom jeex na yëgal leen loolu rek moo ko war a tax a jóg de saa bu demee nag ba iddaam jeex ba mu sëy keneen bu yàlla dogaloon sëy booba tas ba ay nit di ko labat kii ko jëkkoon yow bu ko neexee mu ñëw labat si ko suñ juboo mu takkaat ko ginnaaw baaxda saw ji la maanaam am na jëkkër ba jëkkër ja tasaat wala ba seen diggante tasaat waaye defare moom amatul foofu ndax jeex na naam jërëjëf Cheikhana Cheikh bi kii nee na ndax dina dagan daara internat boo xam ne dem nañ ba am ñu mokkal ña mokkal ñu ñawal leen ay yére yu nuroo ñu xam ni ñii ñooy ñu mokkal seen yére yi ñuy sol du bokk ak ñeneen ñi ñuy sol couleur yi sax mën naa bañ a bokk ndax loolu day dagan wala day dugg ci bidaa alhamdulilah ñi nga xam ne dañoo mokkal alxuraan ñu leen di teral boole leen ay yére yu bokk li am solo rek mooy bu fekkee ay jigéen a ngi ci na yére doon yére yoo xam ne lislaam nangul ay yére yu jot te fat su boobaa dara di ca nekk bokk gi couleur bi moom amut lenn loo xam ne lu muy wàññi la te sax am na njëriñ ci ay côté comme niñ ko xamee ci Euh, yére unique yi ñuy defal ci école yi ñëpp bokk ko ndax euh, bàyyi leen kenn ku ne say waajur xott yi ñuy ëpp leen te ñii di wane ne saa waajur borom xaalis la ñii di wane ne ñeneen ci des doon ñoo xam ne ñu ñàkk lañ ñuy feeñ ci seen colum doom ñoom ñëpp ñu bokk leen lañ sol daf ko gën ci li xale yi yëpp ñoom ci seen jëmmi bopp couleur boobu ñu leen jox ci bis boobu nga xam ne dañuy xam ne ñii nga xam ne ñoom ñoo mokkal alxuraan ñoom lañ tere jox leen lu weex li tàll ñu ànd sol ko yooyu yëpp yu am njariñ la yoo xam ne day loo xale bi e, loo xam ne e, lu koy jox teraanga la naam waffaqakum allah jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si nee na dafa am xaritam boo xam ne day jaay ay rob ak yooyu mais da ko koy yónnee ci e, whatsapp bi su ko ko yónnee nag moom ci boppam da koy jëlaat mu mu estati ko ku ko bëgg wax ko ko nee na su fekkoon ne huit mille lay jar moom da ciy teg mille francs ni ko neuf mille laa koy jaay su ko fayee mu jox kee huit mille am jël mille francs mu ni ndax loolu daggan na wala déet alhamdulilah su fekkee ne ki nga xam ne day jaay robb yi moom ci boppam lim koy jaayee dafa yées njëgam ki mu koy jaayloo delloo si ko ba mu toll ci njëgam képp nga xam ne fii la war a jaar loola bu boobaa dara du ca nekk waaye nag bu fekkee da koy jaayee njëgam moom mu yëkkati ko ba mu gën a cher ci doomu aadama mu di leen ko jaayaat loola du jaadu lu dul ci genn anam su fekkee ne kële daa nekk ab grossiste muy jël ci moom te fekk bi muy jëlit jaayalu ko waaye day jaayal boppam muy jël ci moom di détaillé su boobaa différence dana am diggante prix eh, bi nekk en gros ak prix bi nga xam ne prix détaillé la foofu rek lay mën a dagana ci anam kooku waaye jaaduwut muy am simsaar boo xam ne daa ci biir marché bi liggéeyul dara lu dul fekk li nit ñuy jaayee nga xam ne su ko nit ñi jëndee loola moo baax ci ñoom moom mu ñëw di ko seeral ci seen kaw loolu la ñuy tere moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boobu muy wax ne wala yakunu lahu simsaar jaaykat bi bu mu am baara njin ne wala euh, koo xam ne mooy dox ci diggante bi ak intermédiaire boo xam ne mooy seeral prix yi loola moo tax alayhi salaatu wasalaam di wax ci xadis boobu yi wallahu taala alam jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii benn procureur la bu nekk Dakar muy laaj ci atte kon moom atte bi lay laaj nee na lan mooy atte koo xam ni masalan da ko indi misaal ci euh, kër docteur euh, mu ni ñoo xam ne yor na seen clinique masalan mais ñu dem ci Euh, yenn dispensaire wala yenn euh, hôpitaux wax ña fa nekk ni leen dañoo bëgg ngeen ñuy yabalal ay clients fii léegi nag ñooñu tamit ni leen client bu ñu yabal dañ ci am nàngam ndax loolu dina dagan wala déet wala ñoom sax ci seen bopp waa clinique bi ni leen ñu ngeen ñu yabalal euh, di ngeen ci am yenn pourcentage mu ni ndax jëflante boobu dagan na ci lislaam wala déet alhamdulilah bépp jëf boo xam ne doomu aadama ngi koy jëf ci xeetu liggéey mu doon lu dagana liggéey képp ku ko ca defal ab service dagan na nga fay ko ak service boobee nu mën a demee day dugg rek ci cadre publicité ki lay yëgleel sa marchandise wala mu lay yëgleel sa cabinet moo xam nu mu koy yëglee ndax day dox ci mbedd ma di ko wax walla da koy jaarale ci ab rajo wala télévision wala ci réseaux sociaux yi kooku am na droit ci ngeen waxtaan juboo ci lan koy fay nga fay ko ko cabinet médical bi du soreegu loolu xanaa rek li ci aaje seet foofu mooy lenn mooy su fekkee ne docteur bi dafa nekk ci hôpital public di faj du jaadu malade yi mu di leen yebal ci clinique yi te fekk dafa dëppoo ak ñoom ci kaw bu dikkee koo fa lam fay fajoo moo gën a cher te it lam fay am moo tax mu yebal ko ci moom du jaadu bu fekkee nag wàllu rek lu mel ne rajo la euh, bindal ko rajo ne ko demal ci béréb sàngam ñu defal la rajo loola su fekkee dem na ci bërëb boobe loola dara nekku ci la dox digganteem ak borom rajo ba nag moom docteur bii fa yeble loola seen diggante la ànd ak ne waa ji liibar na bu ko neexee fa ne ko dem fa mu dem fa bu ko neexut it mu dem feneen wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah wa baraka fiikum cheikh bi kii dafay laaj mu ni ginnaaw bi mu la ñaan jullit ñëpp nee na poupée poupée yi ñuy jëndal xale yi nga xam ne nekk nit fas ak yu demee noonu mu ne ndax daggan na wala déet ci biir kër alhamdulilah poupée yoo xam ne ay xale dañ koy fooyee loolu jaar na ci fataaw ba tàyyi ne lool terewuñ ko moo ay nit la ay fas la wala gone la daal loola moom tereesu ko naam waffaqakum allah jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na dafa dégg ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na juróom yoo xam ni ku ko gis euh, foo ko mën a gisee na nga ko rey mu dégg ñu ni unku ci la mu ni yeneen yi ci des la bëgg a xam mooy yem alhamdulilah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na juróomi mala yoo xam ne dafa santaane ku leen gis na nga leen rey bamte ci xaramu mu la bi nga xam ne dañuy tere ku ko rey dara mu ne xamsun min addawaabi fawaasiqu yuqtalna fi lxilli walxaram mu tudd ci alxuraab mooy baaxuñ alxidaatu mooy liccin yi jàpp ganaar yi alfaratu mooy janax kenn ku ne xam nag yàqam wal aqrab ak jiit mu juróomeele ko alkalbu al aquur mooy xaj bu génn xaj boo xam ne dafa génn na ci àll bi rek kum dajal màtt la euh, xamatul kenn euh, juróom bennee la na ko nag ci beneen riwaaya boole ci unk mu ne fooy si xala bu ko gis ku nekk moom itam na nga ko rey kon juróom la xadis bi wax waaye kon jubluwul ne ci juróom yi ci la yam am na bu ko juróom benneel kon boobu mooy unk wallahu taala alam jërëjëf Cheikhana jazakumullahu xeyran cheikh bi kii nee na dafa am benn waaye boo xam ne ñoom ñaar daana liggéey ci suuf njënd ak jaay waaye yoon da ko doon topp bi ko yoon di wër xam naa ñu xool ci téléphone gis ni wootante nag moom ñu koo ko ko nee na woon sax luñ ko doon doyee mu dem ñu ne ko xam nga diw mu ni waaw xam nga fu mu dëkk mu ni waaw ñu ne ko moom lañ bëgg nga yóbbu ñu nee na nag xamatul lu muy def mu yóbbu leen euh, këram mu ni ndax loolu mu def noonu dagan na wala daganul da ci am bàkkaar wala déet alhamdulilah am naa laaj giñ ko laaj ne ko ndax xam nga diw mu ne xam na ko xam nga ko mu dëkk mu ne waaw loola moom dara du nekk ci waaye bu ca dara desul nag lu kay yóbbu nag loola moom la jaadu rek mooy tegtal leen ndax en tant que ñoo xam ne xëy na ginnaaw yoon la wax xëy na police lay doon wala ñu nuroog ñooña jël ab adresse dem fa moom loolu jafewut ci ñoom kon ànd ak ñoom ba ñëw naan leen kër gaa ngi loola moom mën naa ñàkk ndax mën naa indi ay jafe-jafe ci digganteem ak waaja wala famille wala yu mel noonu te yu mel noonu daf koy wattandiko àla kulli xaal tegtale gi nag ñëwul dara su fekkee ñu koy seet la bu dee jàmm lañ koy seet alhamdulilah bu dee ab safaan it danañ xam ndax moo defub safaan wala defu ko boobaa dara nekk ci moo gën muy wax loo xam ne lu amut la di wax ne xaw ma ko fekk xam na ko naam waffaqakum allah jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si nee na ndax eh, ay tànk awra la ci jigéen wala déet dafa war a feeñ wala dañ ko war a nëbb alhamdulilah ndax ay tànk awra la wala déet laaj yi xam naa ne xaw naa doy waar ndax tànk moom mooy la tàmbalee ci pooj ba ci suuf lépp ab tànk la moo tax wala yaasu billah ki nga xam ne dañoo dagg ab tànkam ca kaw dañuy wax ne dagg nañ tànk ba maanaam lépp dem na kon jékki-jékki rek laaj ndax tànk awra la laajin wu xaw a yaatu la ala kulli xaal bu fekkee loolu la jubloo laaj tànk am na ci loo xam ne awra la ci anam goo xam ne kenn juuyoowu ci ci borom xam-xam yi mu la tàmbalee ci ay pooj ba ci ay óom moom kenn juuyoowu ci ne loolu awra la moo xam góor la moo xam jigéen la su fekkee jigéen la nag ndax ndëgguy tànk yi muy li tàmbalee ci wax wi jëm suuf ndax loolu awra la wala du awra lenn ci ay warami xam-xam moom dañ ne jigéen lépp comme awra la waaye nag ay tànk moom ci mënta bañ a feeñ la bokk illaa ma zahara minha xar kanam ak ay tënk lenn ci borom xam-xam yi boole ci ay tànki ndëggu yi muy doxe yooya su feeñee te fekk wenn xeetu taar defuñu ko ca su boobaa loola terewuñ ko su boobaa loola terewuñ ko su ca defee xeetu taar nag comme mu takk ay teqal na wala mu def ci xeeti fuddan wala lenn loo xam ne xeetu taar la rek ci tànk yooyu su boobaa day nëbb ko day daal di jaadu ci képp koo xam ne ab jàngur la ci moom su fekkee nag dafa nekk ci biir julli loolu moom sopp nañ mu muur ko waaye nag ñàkk gaa muur it ma jàppul julli gi wala kuli xaal waaye su fekkee sol nay kawas daal walla mu wàccee yéreem ba muuraale tànk ya su boobaa loola day gën a baax rek bu dee jigéen wallahu taala alam waffaqakum albaari jazakum allahu xayran cheikh bi soxna si nee na dafay laaj moom daal dafa am ñaari mbir yu ko jaaxal benn bi mooy dafa gis ko xam ne dafa fuddan eh, kawari boppam nee na xamoon mooy sikkim ne ndax loolu dina dagan wala déet beneen bi ci des nee ndax dina dagan ci jigéen ak góor ñuy tent seen bopp ndax dégg na ci fatawa ñëw dagan na comme ni nga ko wax ci ay charte waaye ndax dina dagan ñu euh, jigéen walla góor mu tent euh, boppam def ko tent bu weex walla tent bu jaune comme ni koy faral di gisee rek ci ñenn ñi jigéen ju xaw a wat karawam ak kawaram ba mu nekk góor mu tent ko wala sax ba góor góor def ko mu ne loolu lu bëgg xam àtteef alhamdulilah euh, soppi kawar day defal ko couleur beneen bu bokkul ak bu ñu yoroon gisuma lu ci séparé diggante bopp ak sikkim su fekkee ne couleur bi dagan na rek taw ni dagan waaye lu naan sikkim a dagan bopp bokku ci wala boppa ci bokk sikkim bokk ci déedéet texte yi demewul naam jërëjëf Cheikhana jazakumullahu xayran cheikh bi ki nee na mi ngi tudd Mouhamad Ba di woote Côte d'Ivoire euh, ñaanal na la lool yàlla subhanahu wa taala sàmm la nga ñaanal ko am na ñetti laaj sax waaye lañuy tënk xam naa ñaar yi nga xam ne xaw nañoo jegante nee na euh, dafa am ñu ñuy dundal ñoo xam ni ay yéefar lañ du ay jullit daal fi ñu fi ñu nekk yeesaa nit ñëw ci sa boutique ni la wecc ma nga wecc ko mu ñaanal la ni la yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla jàppale ci sa liggéey foofu lay wax mu ni ndax war naa wax amiin wala déet te ki la koy wax moom du jullit mu ni encore dafa dégg ku ni euh, ni mu ñàkk a dagane nga gis jullit bu gaañu jullit bu dee nga ni kii àjjana la jëm dogu ci noonu la daganul nga gis ab yéeféer ku dul jullit ku nekk ci beneen diine ku dee nga ni kii safara la jëm mu ni ndax loolu lu wér la wala déet. alhamdulilah xam naa ñaari laaj yi moom xaw nañoo sore tey boole ko ci benn question rek la mën a def euh, képp ku la ñaanal ginnaaw ci yàlla la ñaan nee ko amin loolu wàññiwul dara moo xam jullit la moo xam leneen la diine ju mën a nekk ginnaaw ci diine ju gëm yàlla la nekk nangu ne yàlla am na mu ne yàlla na la yàlla defal tawfiq wala yàlla na la yàlla may nangam ne ko amin su tuddee leneen wala keneen nag ne yàlla na la defal nangam kooku sa xel xalaat nañ ko amin kooku koy day matulaa biire mu xam ne keneen kuy defal kenn lenn ku dul yàlla ci xeetu ñaan loola moom amut am naa nag diggante jullit bi ak yéefar bi fekk faatu nañ jullit bi day mënees naa am ci moom yaakaar waaye nag desul dogu ci ne kii tàbbi na àjjana lu dul su fekkee ne daa doon koo xam ne ak texte moo ñëw ne tàbbi na àjjana comme ni am ni mu amee woon ci almubasharoon bil janna ñi nga xam ne yeneen bi daa leen ci àjjana yeneen lu dul loon nag ay melokaan la yàlla di melal na ñooña ku mel nii da ngay tàbbi àjjana kon ki nga gis mu mel noona ci zahiram mën ngaa rafet ci moom njort waaye li tax munoo dogu nag ci ne ma nga àjjana wala day daal di tàbbi àjjana bu faatoo la tax munoo caa dogu mooy dangaa xam zahiram te xamoo baatinam yàlla rek moo xam baatinam ki nga xam ne mooy yéefar bi na nga xam ne wóor na la ni kii mi ngi dund kéefar ba bi muy xar-xarle mi ngi naan ko waxal ashhadu an laa ilaaha illallah mu lànk di junj ci baaraamam naan déedéet ba faat kooka moom boo gëmul ne ma nga sawara rek gëmoo alquran waaw noonu la demee kooka ma nga alquran bokkut wallahu taala alam jërëjëf cheikhana barakallahu fiikum cheikh bi kii mi ngi tudd Mouhamed nee na day la sant bi nee na Amérique lay wootee def na fa ñaar fukki at ak ñett mu ni dañuy sonn lool façon liggéey buñ gis dinañ ko liggéey bépp liggéey bu dagan nee na ña nga ca guddeeg bëccëg ngoon nee na yeesaa dañuy dajale seen xaalis pour yónnee ko Sénégal man cee investir dara ndax bu ñibbisee man a toog ni ñëpp ndax àll bi metti na waaye nee na daal lu bëri bëri bëri ci ñoom ku ñu yónnee seen xaalis ca Sénégal wala ñu cee defal dara wala liggéey wala demee noonu nee na ñu wor leen wala ñu yàqate ko wala ñu sàkkal ko pexe mu ne nag xam na ni fatawa yaatoo ak ñi koy déglu ci biir Sénégal ak ci bitim réew nee na bëggoon na def ci benn fàttali amaana kenn ci ñu doon def loolu mën a gindeeku ci wala boog koo xam ne defagu ko mu mën koo bàyyi ndax ñoom nee nañ sonn nañ lool alhamdulilah eh, Mouhamad moom yi nekk ca bitim réew di jàmbat wàllu jikko yi ak jëflante gi ci alal ba koo yóbbante di ko defloo dara mu jëfandikoo ko walla koy liggéeyloo mu yàq liggéey ba loolu yi muy wax tey phénomène la boo xam ne bu jéggi dayo la boo xam ne waxuma ña nekk ci bitim réew sax ay nit nekk fii ci biir réew mi di leen war waaye ay nit a ngi fii ci biir réew mi bëgg a liggéey pexe yu nekk ñu di ci dugg mënuñoo fexe ba liggéey ndax luñ teg ci loxoom nit rek mu yàq ko ala kulli xaal li ma tax rekk mooy nit ki du ñàkk alalam fii ci àdduna ñàkk ko fële nu jëm du ñàkk alalam fii ñàkk ko fële nu jëm te it li wér nag mooy wor yooyu yi ak lekk alali jàmbur metti na lool nag ci xolu kiñ lekk alalam waaye su fekkoon ne xam na mbir mi ni mu tëddee dëgg dëgg dëgg dana ne ak a neexoon sax sama alal jëpp faf nit ñi lekk ko ba mu jeex ndax bu ëllëgee lañu koy fayee muy yi ña nga xam ne ñoo doon lekk alal ji ñi di ko jël di ko xëpp tuyaaba jooji ba mu yàgg ñuy jël ay bàkkaaram di ko xëj xëpp kooku yi nga xam ne moo doon lekk alali jàmbur su gisee loolu la mu koy jural yowmal qiyaama di ko ko jural ëllëg dana ne ak a neexoon sama alal jëpp waa ji lekkoon ko ndax la nekk foofa la mu gën a li nekk fii amul qiyaas maanaam mënee su koo nattale mënee su koo nattale ndax dund goo xam ne lépp boo ko boolee dafa gàtt bokkul ak dund goo xam ne amul fu muy yem jant bu dul amul fenn fu yem dund ko àdduna gi nag gàtt la moo tax képp koo xam ne alal tax na nga jëndee sa dund ak àdduna bay lekk lu xaraam wala nga jël alali jàmbur yoo xam ne jum moomut la di ko jëfandikoo sa xam-xam gàtt na lool sa tawfiq it soriwut ndax lépp loo xam ne lu lu lewadi la moom ëllëg musiba la ci sa kaw moo tax nit ki fag bu dërëm ba lew mooy la nga xam ne moo jiitu ci ay mbiram lu bari luy gàllankooru ci ay ñaan yoo xam ne da ngay fanaanee ñaan ba suba doo gis dara noonu nga ko ñàkk gisee noonu ngay jàngee alxuraan ak julli tuyaaba tus du fa nekk ndax dangaa jël yàq loo xam ne day tee nit ñi ñu nangul ko ay jàmm yàlla jëfe loo xam ne day tee ñu nangul la say jaamu yàlla tee ñu nangul la say ñaan loolu nag képp koo xam ne ci loolu ngay dund euh, sa tawfiq moom soriwul te li wér mooy ñooñu nga xam ne ñooy jël alali jàmbur yooyu di ko jëfandikoo moo xam dañ ko tabax ay kër wala dañ ko jënd waaye jëmut fenn diir bu gàtt lay am rek jeex tàkk dutoo ci gis dara ndax lu léwul moom du law lu léwul du law amul kenn ku mën a tabax ay paleen ci loo xam ne lu léwut la muy continuer mu di ca dund nekk ci jàmm moo tax lu léwul law te ku ca regg ràgg loolu la wolof wax ku ca regg ràgg mooy ku ca lekk ba regg feebar rek la lay jurlu fii ci àdduna waaye la ci àllaaxira nag mooy yées wallahu taala alam jërëjëf Cheikhana cheikh bi soxna si nee na bi muy gis mbaax fekk na gee jot na waaye julleegu ko su demee ba set da koy fay wala du ko fay wala moom dong lay fay wala day fayal timis bi ci zone julli woon na ko wala nu muy def. alhamdulilah ki nga xam ne waxtu bi dugg na mu dis baax kooka bu fekkee julli woon na waxtu timis moom loola jàll na julli na timis du ko fay waxtu geewe nag day xool ba xam ndax fi waxtu wi dugge ak fi mu gisee baax julli woon gee xaj na fi walla déet su fekkee xajoon na fi kon day fay su fekkee xaju fi nag du fay bi naana waxtu bi nga xam ne waxtu dugg na képp nga xam ne dafa dugg képp kii nodd yëkkati kàddoom di nodd bi mu daataan daaneel ci nodd gi mu gis baax googa julli mënu koo julli moo tax du ko fay su fekkoon ne nag waxtu wa dugg na ba ñu nodd ba mu yàgg moom moo yeex a julli door a gis baax su boobaa julli gaa ngi ci aw loosam bés bu seetee da koy fay wallahu taala alam baraka allahu fiikum wa jazakum allahu xayran waffaqakum allahu lima fihi alxayr wassalah ci toon ci leeri cheikhana yàlla na la yàlla sàmmal Euh, yàlla defal la tawfiq ak taysir defal ñu ko defal ko mboolem jullit kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yemandi seen émission al fatawa ba beneen ay bis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jataayu mi am lu la ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel leen seen émission bi di al fatawa al fatawa di émission buy tontu laaj yu jëm ci seen wàllu une heure jàpp vingt deux heures ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ciy feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen bi di al fatawa mën ngaa yónnee sab laaj ci numéro whatsapp bu fatawa rajo Leeral FM bi di 78 179 27 59 78 179 bi képp whatsapp bi ngeen jëf kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine azamatu yamini law indi umri yafini nashartu taalima bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk dégg diine mbokk yi ñu topp ci plateforme digitale yëpp ñu ngi leen nuyu ginnaaw bañ leen sante bu baax ci àndandoo bu rafet bi ngeen àndandoog dégg diine boobu ba léegi projet bu ñu fi yëkkati ñu àndandoo ko yàlla defal ñu ci tawfiq ñu ñëwaat tey ubbiwaat beneen projet muy projet studio comme ni ko gisee liggéey bi laaj na ko moo tax ñu bëgg ubbi eh, studio boo xamante ni eh, studio d'enregistrement lay doon ay phase la nag maanaam ay pàcc pàcc la pàcc bi ñu toll nag mooy phase un bi moom liñ ciy def mooy insonorisation décor plateau ak lumière insonorisation mooy fexe def ba def anam yoo xamante ne dafay tax studio bi maanaam son bi du am écho te biru du ci dugg ñaareel bi mooy decor plateau mooy ñu defar plateau boo xamante ne ci la émission yi di amee ñetteel bi mooy lumière studio phase bu njëkk bi nag kiñ ko war a defaral bi ñu defaree début bi mi ngi toll ci deux millions de francs CFA mooy insonorisation bi lumière studio yi ak décor plateau bi ak bi. kon mbokk yi képp ku ci bëgg a jàpp rek même ñu leen di ñaan yéen ngeen jàpp ci participer ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam te ñu doon jàppale ci projet yëpp yàlla na jàppale waat ci suñu projet bii ba balaa yàgg ñu passé phase 1 bi ba dugg ci phase 2 bi jazaakumullahu xayran